asalaamaaleykum mbokk yi asalaamaaleykum xam naa na guddi na lool lool lool lool waaye ñu dal xel yi xam ni bi ñu wàccee ba léegi ñu ngi doon xoolaat mbiri Ousmane Sonko rawatina nag date bi nga xam ne moom lañu choisir muy le 17. nga xam ne si la CEDEAO wala joxe verdigam Cour suprême bu si war si wax may dalal xele nag lool lool lool wax ni 17 Ousmane Sonko mënul am date bu gën boobu ñu le chiffre le nombre 17 boo xoolee 17 dafa nekk un ak sept muy huit huit nag dafa am ñaari kër génn kër gi spiritualité la spiritualité mooy esprit beneen kër bi nekk matière esprit ak matière nag mooy àddina moo composé nit ndax esprit mooy li xalaat matière mooy yaram bi y avait beaucoup boole mooy nit 17 est un signe de renouveau de renaissance maanaam mi ngi mel ni kuy départ pour jugaat kon tax na Ousmane mënul am date bu gën le 17 novembre ñu sant ko yàlla bu baax 17 aussi dañ koy symboliser 8 parce que 1 plus 7 8 8 nag Platon daf ko féetale woon suuf muy signe suuf muy la terre Ousmane ko ñëw nekk ndox ndox nag bu jaxasoo ak suuf dafay jibbi kon yaakaar mën naa am de man jàpp naa am de dix-sept ah. bis mënu ko gën de dix-sept mënu gën si Ousmane Sonko am nañ yaakaar lool nag lool lool lool ni si jógee ah, dana yëkkati ko de si kàttan yàlla te yàlla na ko yàlla def dix bañ nañ ko ba boo ko gisee si génn sax dañ naa la yaa si la bonne voie yaa si yoon wi bul tegg tànk kon ngeen dalal xel yi xam ni la may noxoon rek du loi wala droit bu dee si ñaar rek la ñuy basé loi ak droit Ousmane Sonko kenn mënu ko daaneel bu dee loolu rek mooy jib